bàyyi leen ñu. mais xaaj Bécaye ñu woote. 88 628 14 13 33 841 23 34. koo bëgg téléphone waaw. Bécaye euh, pare naa ci euh, Ibrahima Faye bés doon ko laaj moom li TV. Ah. damay dugg ci IP télé man de bi combat bi amee. Mhm. muy combat Sa Thiès Moussa Ndoye. Mhm. Issa Pouye ak. Euh, Aliou Seydou dafa fekk ma nekk hors Sénégal hors pays. Mhm. mu mu ma loolu nag pour ma seetaan ko. ma woote laajte ñu orienté ma ci benn site mooy site bi nga xamante ne mooy ma fii ñu mm-hmm. ma jënd neuf euros quatre vingt comme dix euros mm-hmm. ñu xamal ma ne dañ ma envoyé ay chiffres wala ay lettres yuy tax ma mën a dugg seetaan mm-hmm. te ba léegi chiffre bu ak leen jotuma ko dañ ma ko envoyé par mail lañ wax jotuma ko wala sama téléphone ba fu may waxee yoon jotuma ko léegi man si je veux je veux me faire yan mooy laay jar parce que ku fay te jëriñoo dañ la rembourser waaw jërëjëf sa question boobu noonu ñëpp ñi nga xamante ni jëndoon nañu. Mm. te jotuñu code par exemple c'est minime. je mm. pense que on a on a deux trois personnes. te malheureusement si yow la tombé. Mm. Euh, process bi nga xamante ne moom la ñu gis ñu dañoo def requête ñi nga xamante ne ñoom ñooy gérer suñu email parce que email bi gere wuñ ko fii dafa am ñoo xam ne ñooy gérer requête yi. requête bi su duggee rek ñoo lay war a envoyer code. signifié nañ leen problème bi nga xamante ni yow moom nga am. Mm. ba lañ ko waxee itam génneel nañu lu tax lu tax affaire bi demul. c'est purement technique. léegi ba ñu ko génnalee ñun def nañ li nga xamante ne mooy suñu wareef mooy def requête de remboursement. Mm. mais day day jël benn 72 heures pour que requête bi mën a ñëw duggaat ci sa carte bancaire. mais képp ki nga xamante ne am nga problème boobu noonu aussi am na ñoo xamante ni jot nañu am na ñoo xamante ne seen remboursement mu ngi en yow solution mhm. pour defar affaire bi mu baax léegi nan la. waaw pay-per-view xam nga baax na. Mhm. pay-per-view bonul baax baax la def ndax su baaxul woon tey euh, du ñu am fitu ñëw ne dañ koy proposer li nga xamante ne mooy loo xamante ne dañ ko war a améliorer mooy dañuy préparer waat suñuy jumtukaay yi nga xamante ne mooy tax ñu liggéey ci pay-per-view maanaam du am lenn loo xamante ni tey dina taxaw làmb am mu gàllankoor que ne du ñu diffuser. c'est-à-dire que dinañ am plan A am plan B ba am plan C. parce que li ko waraloon lu ndaw a ndaw la technicien yaa ngi fii nii xam nañ ko lu ndaw ndaw la mais loolu noonu tamit bettoon nañu ak condition li nga xamante ne moom moo xasoon ba am mais li nga xamante ni wóolu nañ ko tey te ñun moom mooy suñu cœur de métier mooy li nga xamante ne moo ñu moom la ñuy diffuser muy suñu plateforme suñu site internet bi donc loolu noonu jox nañu assurance ak garantie boo xamante ni lépp lu fa jaar dina jaar léegi nag lu si des mooy connectivité bi nga xamante ne mooy tax ñii nga xamante ni ñooy filmer di ñu ko jox pour ñun ñu mun a diffuser te loolu ñu ngi siy liggéey liggéey bu baax a baax a baax pour que mu mun a am amélioration. Euh, euh, jërëjëf Bira ñu lay encouragé ah. jërëjëf na jërëjëf. ah parce que ñuy woote nga liggéey dara di woote ni lim ma liggéeyal dara baaxu di am na ñoo mhm. xamante mhm. ne <laughs> wax naa ko Moustapha xam mhm. <laughs> man lan doon xas waaw man leen man lu sama yoon man yëngu et puis loolu dafa xam nga aussi tamit dafa am loo xamante ni dafa am mooy suñu mbokk yi dafa bëri ñoo xamante ni tey suñuy jënd ak seen carte bancaire soo leen waxee sax trois chiffres de sécurité wala wala mois bu sa carte di expiré xamuñu ko. Hmm. donc bëri na ñi nga xamante ni dañuy toog di composer di composer mais ñoom seen bopp lu ñuy composer. xamuñu yenn saa yi xamuñu ko. Hmm, hmm, loolu mooy indi ay jafe-jafe saa yu bëri bëri bëri si côté làmb. mais ñu ngi siy jël ay mesures chaque fois ba nga xamante ni benn yoon benn étape ñaari étape nga dugg si li nga xamante ne moo lay. moo lay li lay mujjee wax parce que temps bi mi ngi dem li ñuy mujjee wax ci pay-per-view bi mooy tafa. pay per yàq engouement làmb. Ah ni làmb amee woon ambiance nit ñi toog seen kër seetaan xaalis bi bien na ah, man je ne pas contre ah. mais un moment bi waroon na. xaalis bi nga xam daf ci yàqu quoi. xaalis a ah. maye gratuit looloo jafe gars yi ñu wax dañ bëgg pour Sénégal yëpp comprendre ne. mais les promoteurs ont ay sponsors. il faut ñu dem braqué wu ci. pay per view mais léegi li ma bëggoon demandé Bécaye mooy c'est important. Ah. mooy ñaari pay per view yi nekk fii. Mm-hmm. Ah. est-ce que yéen ngeen dem ki télévision ba. Mm-hmm. bi nga xamante ne mooy produire branché fa seen jaar gars yi seetaan ak yéen ngeen teg seen plateau. teg sa évoluer seen évolution bopp ban moo ban moo ci gën a jubu ak ban moo ci gën a mën a jaar yoon. xam nga ñun à la base ay diffuseur lañu ay diffuseur maanaam da ñuy jox li nga xamante ne yow moom nga liggéey ñun. ñu dugal ko si fi nga xamante ni foofu la nit ñi di jëndee pour diffuser. Mhm. loolu mooy li nga xamante ni ñun moom la ñuy jaay ñu producteur. pro métier producteur mooy ñi nga xamante ni ñoo nekk si si si chaîne de télévision yi ak ñi nga xamante ni loolu mooy seen liggéey ñoom ñoo koy def mais ñun lu ñuy def mooy diffusion diffusion la ñuy def moo tax ñu ngi si domaine yu bëri euh, et pay-per-view bi ak bi ñu nekk si mais ay diffuseur la ñu à la base. c'est-à-dire que souvent nit ñi dañuy am euh, polémique. Euh, entre production bi ak diffusion bi ñun ay diffuseur lañu uh-huh. waaw ñun ay diffuseur lañu xëy na sama mbokk euh, Ibrahima moom dafa am chaîne am chaîne am parce que moom passionné na la sànq mu ngi ko doon jéem a expliqué fii xëy na ñu. mais Ibrahima am na chaîne mais kenn laaj ko chaîne am waaw waaw looloo tax nag souvent moom mooy def di créer chaîne ok léegi léegi léegi mais Cheikh Ibrahima su fekkee mën na plateau tamit mhm. plateau bi mucc ayib mel ni télévision tamit ah Moustapha ndax loolu mën na nekk waaw qu'on se dise la vérité. léegi Ibrahima bu tegoon plateau man man reporté wu ma attention man ma tal sax reporté. non pas fait li ñu war a wax moom mooy ñun euh, bëgg valeur ajoutée moo indi plateau ca stade ba. parce que xam nga dégg nga Bira mu ngi koy wax léegi ci seen ay événements dañu peut-être ay problèmes yoo xamante ne peut-être amuñu woon benn plan B wala plan man bi ma defee sama deux premiers événements pay per ma am ci ay jafe-jafe mais là je me plus jamais ça du ma yeewu. père Bécaye di ma wala keneen di ma woo naan ma am ngay ay jafe-jafe yu mel noonu ci côté technique yi donc dañuy jël suñu ay motukaay yëpp donc loolu moo boo déggee may la su ma defee le bilan global financier du pay-per-view on est à perte te loolu dara dara jaraluñu ko lu dul gëm projet bi bëgg mu avancer parce que man dama am yàqin ni que pay-per-view avantage làmb la am na ay avantage am na ay inconvénient inconvénients yi comme ni nga ko waxee dañ doon toog teg suñu ataaya teg suñu ay gerte caaf comme ni ma ko waxee jàkkaarloog télé bi grand écran duñu fay dara mm. waaw affaire bi di seetaan mais dafa am lu mu indiwaat ci làmb mm. man ba la ngay Gris Bordeaux kenn laa gis samay père yoo xamante ni bu ñu gëjee làmb est-ce que du ay Tafa Gueye maam mm. njëmbaat est-ce que yaa ngi dégg lu ma mais comme que xam na ne du ay Tafa Gueye Tyson comme xam na ni léegi ñoom dañu war a fay pour seetaan ko télé il préfère revenir au stade donc maintenant le promoteur il gagne deux ou trois fois pourquoi le promoteur gagne mais ñuy casse pay per view nekk pay per view doxalu làmb ñoom lu ñu war a wax promoteur yi doon wax ni dañuy arrêté direct juste avant pay per view di ñëw bàyyil sa xel. Hmm. da nga ñëw bu bésu làmb promoteur yu bëri naan la defuñu direct. Hmm. parce que dañu bëggoon seen stade di fees. donc amoon na promoteur sax yu testé expérience boobu. yaakaar naa ay combat combat Moustapha Gueye Balla Beye numéro 2 c'est premier combat. su ma ko defee direct ci guddi gi la ko exactement donc le promoteur day wax ni que Siteu Zos par exemple je pense bien que du woon direct donc promoteur bi day ne su ma ko defee direct man sama stade du fees mhm. même booy Niang Garga Mbossé dem nañ ba stade bi fees Pape Abdou Fall nangoo soog a def direct mm. léegi pay pour view dafa indi alternative mm. mooy léegi dafay indi direct payant mm. direct payant boobu promoteur bi da ciy gagné deux ou trois fois mooy stade day fees mu gagné ci ba pare itam nit ñi jënd ci pay per view fii au niveau local promoteur bi gagné ci ñu nekk ci diaspora bi ñoo xamante ne seen yoon daawul woon nekk ci lamb entre guillemets mooy maanaam amul benn xaalis bu ñu dugal ci lamb ah. ñooñu léegi dañuy dugal lamb dama dem barki démboo ñaay Gambie ministre de sports bu Gambie. Mm. maa ngi koy nuyu bu baax a baax. Mm. ma defa moom benn interview ñuy waxtaan mu ne moom kat dafa toog Sa Thiès Moussa Ndoye bëgg ko seetaan gars yi ne ko ah ñi léegi Sénégal seen lamb yi dañuy fay mu ne ah loolu baax na de. man mm. États-Unis laa nekkoon loolu lañ fay def te man dama gëm ni que sport il faut mu am xaalis pour sport bi di dox. donc il faut ñu fayloo nit ñi ministre Gambie automatiquement c'est ce qu'il a dit c'est un jeune. et qui loolu lañ ko wax donc en tant que boo gisee ñuy def. am na avenir mais avenir avenir bi tey. lu ko Nicolaï def. pour la première fois Gaston Meng def ko Baye Ndiaye def ko Pape Abdou Fall war ko def ak Siteu Papa Sow. Mm-hmm. ak ñoom Fallou Ndiaye ñoom ñëpp di ko def. Mm-hmm. tey même euh, wasaa xaw ma équipe équipe ñu ngi 37 5 Moustapha Diop def ko am na avenir plateau bi nag. non xam naa ni neexul non non non non non c'est bon. léegi plateau bi dafa leeral dafa des xamin. non mënoo woo yi pay view. te le promoteur bi tax coow li am. bi tax gars di respecté muy muy Gaston Production intervenir ci lii parce que moom lu ko neex lu ko naqari. mbaa lu mu ci war a. non mais après dama a ñëwaat. wala ah. ci promoteur mais bi nag béykat yi bisu tey bii. ci ba tax ñu fi. Gaston war ci réagir war ci réagir mais après Gaston production réagir ci. non non Gaston production ñu may jaawale Gaston. d' accord mais ko. dañuy ñëwaat. ak promoteur yi ak mm. directeur programme télé yi parce que télé yi ban avantage la ñu amati di signé ak contrat ak les pro les mm. il faut ñu waxtaan mais est-ce parce que non buzz. mais ah. il est pay per view. il est laa koy mos wax. ci gémmiñu président écurie Fass la génnee. ak gémmiñu benn directeur de programme. Bouba Ndour mm-hmm. fekk boobu maa ngi xalaat idée bi. di ci liggéey nekk passionné làmb. Mm. toog sama néeg Canada di seetaan. bëgg a làmb première signature contrat Balla Gaye de Gris Bordeaux. Mhm. Abbas Ndoye président écurie Fass toog. Mhm. Bouba Ndour toog Luc Nicolaï toog Balla Gaye de toog Gris Bordeaux toog ñu ne sponsor yi kiti neen làmb ji. Mhm. ñu ne yan pexe la ñu mën a def pour ñëw. ku mel ni Abass Ndoye yëkkati kàddu ne war nañ mën a fexe ñi ñu toog seen kër ñu leen di fayloo sax 1000 francs pour ñu seetaan mhm. Bouba Ndour dëggal loolu en tant que directeur de programme mhm. foofu mu ne ñu dem fekk ñun am nañ jumtukaay boobu doon ci liggéey di ci xalaat mu ñëw proposé ko ci combat boobu yàlla dogal li ñu ko laay ànd ci ñun ci Balla Gaye de Gris Bordeaux mu nekk le premier combat bu ñu dugg ñu def ko après léegi bizarrement maintenant am na ñu xam ne neexu mais il faut qu'on comprenne non mu neexul li nga li nga war a xam li nga li nga xamante ne ñëw fruit yi jël jël jël jël bi. waaw ñu seetaan ko Moustapha Gueye mën na toog fii mu commenté ko j'espère bien ci li nga xam noonu la tëb. ay ca dama doon wax ne que xëy na li nga xamante ne ñun ñu ngi ko tàmbale nekk ay ndaw di si liggéey tey jii nii suba wala ginnaaw suba la ñuy gis fruit yi parce que tey suñu demee ba nga xamante ni yéen ba ngeen di démarrer seen seen seen seen émission yéen a ngi wax lu tax ay petite catégorie du am ñu tegal leen dara tey promoteur bi nga xamante ne mooy organiser su fekkee joxoo ko assez de force assez de pouvoir assez de ressources pour mu organiser ay combat yu mag yu ndaw yu si topp ak yu si topp. Hmm. do am ressource donc loolu rek moo ñu anime mais du leneen terminer rek lu ah, important. Ah, ah. Karajo nga Babacar indil nu indil nu combat Moustapha Gueye commenté combat. Gris 2 ma bëgg a terminer ci avant. waaw non non vas-y important. Hmm. pour ñu bañ ko parce que à chaque fois qu'il y a des pay-per-view. Uh-huh. Euh, dañuy. may woo man Beuz Pro te peut-être ITRP bi passé moo def pay per view Sa Thiès Moussa moo Modou Lo Eumeu Sène sax Beuz Pro waru ko woon def beneen structure moo ko war def dama bëgg léegi sénégalais yi ñuy ràññee mm-hmm. ku ci nekk ñu xam parce que par mm-hmm. exemple télé yi bari na yow am na làmb est-ce que bu làmb jeexee rek dañuy ne nañ woo Père am na làmb yooyu def plateau ak yoo dul def plateau dama bëgg télé yi ñuy ràññee lu tax may wax loolu très important naa fi ay plateforme pay per view ay promoteur mm-hmm. je je je je je ah dama bëgg mu leer ay promoteur signé nañu fi ak ñoo xamante ne nee nañu mën nañu pay per view mais ça sera une catastrophe parce que ubbi naa plateforme yi xool ko ah, parce que nit ki am na expérience. ci benn ah, affaire. Euh, pendant trois ans. Hmm. ça sera une catastrophe man du ma dem làmb toog sama kër. waaw animateur wax ba pare mbër bi ni ko père Bécaye. waaw looloo la non parce loolu. am na non nangu ko. nangu ko loolu la parce que yaa ko a def. Ah, looloo tax ñu ñëw di ah, buzz bii passé am na ñoo xam ne nee nu buzz la. dama bëgg lu ràññee parce que dama gis luy ñëw tuuti am na ay combat yu war a ñëw am na promoteur yu signé ak yeneen société yu ah non bàyyi bu leen tiital bàyyi parce que dama bëgg mu leer léegi parce que en fait man lu ci bëri damay toog di wax nit ñi duñ ma bàyyi xel dañuy foog ni kii day wax lii rek moo fi am xam aw fi xam-xam man kese ñu may liggéeyal yàlla mi ñu tiim ñooñu ëpp xam-xam foofu ñoom biraa macha allah mais am na promoteur yu signé ak ay structure yu leen war a defal pay per pour moins cher ah ñëw jox leen maanaam ne pourcentage bi moo gën a faible mais techniquement du ci war du ci dem te man maa la ko wax tey dem ci événement yooyu ça sera une catastrophe technique après bu kenn kenn woo seen affiche loolu loolu rek laa bëggoon préciser bon jërëjëf euh, ah ñu remercier leen yaakaar naa ni combat bi mbokk yi mooy li amoon tey diggante Abdou Diouf ak ki nga xamante ni moom moo di Gris 2 Moustapha